kon ginnaaw bu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jullee jullik ajuma gi ñu nettali woon ca gannaaw euh, ba def xutba bu yéeme boobu euh, ba mu noppee dafa daal di wéy nag euh, jëm Madina ñu daan ko wax Yasriba ca jamono boobu ba mu jógee waaw Yasriba googu dal di jóg ngir di ko gàttandu si biñ demee ba jàkkaarloo moom ñu ngay wax ne allahu akbar jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad jigéen ñi ak xale yi di sadd ay bayit di ci feeñal seen mbégte muy talaa al badru alayna min saniyati alwadaa wajaba alshukru alayna ma daa lillahi daa ayuha almabuusu fiina jita bil amri almutaai yi nga wax ni weer wi fekk na ci nun ko ci saniyatul wadaa saniya nag bu ñu ko waxee am mbedd la muñ daan woye ñu wax ni sant war nanu li feek aji woote ñu ngi woote jëm ci yàlla di wax ne ko yow mi yàlla yónni ci noonu andil nga nu mbir moom fas nañu ko yéene topp mu doon bis bu bis bu bu ci wàllu taar bis bu yéeme ci mbégte bis la boobu daal dëkk boobu di Yasriba mësul te gis bis bu ni mel ci taarixam dansaar yi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 kilifa giir sàngam moo ànd ak mbooloom noonu bu ñëwee ne ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah marxala boobu nag moo continué ba ni yonente di wujjee boroomam ci weeru rabiul awal ci atum fukk ak benn ci gàddaay kon ñetti étape yooyu la ñuy xaaj euh, bi mu ñëwee madina benn ñi mu génne àdduna ci ñetti xaaj yooyu lañ ko xaaj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 Eh, première xalaat bu njëkk a toog ci xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy première war-war boo xam ni war na ci moom. lam njëkk a xalaat kon mooy seet lu ngi def kon activité bi mu njëkk a jóg moom yonent bi ci yëngutu mooy muhaajiroone yi nga xam ne dañoo bàyyi ko Màkka te ñu ëpp ci ñoom muhaajiroone yi ba ñuy bàyyi ko Màkka dañu daan dund dund bu yaatu eh, doonoon boroomi alal te dañ leen a loo ci ñu war a bàyyi eh, seen koom-koom yooyee ngir rawale seen diir kon yonente bi li mu a xalaat mooy dundub muhaajiroon yooyu nga xam ne bañuy ñuy jóge màkka dañu faa bàyyi seeni alal ngir rawale seen diine fii ci Madina dund bu diis bi fi doon dund li muy jëkk a def mooy seet luñ dundee dund bu tegu ci aw yoon solution bi ci yonente bi jëlit mooy dafa fas ak mbokkoo ci diggante mu yi ak lansaar yi ni leen ngeen bokkoo ñaar par ñaar léegi doonoon nañ lu mat juróom-ñeent fukki nit ci diggante ay muhaajiroon ak lansaar Euh, benn lan bu ne muy ku dëkk Madina ku ne jël kenn ci waa Màkka féete woo ko bokkoo ak moom mu boole leen ci ñu war di dimbulente boole ne leen ba ci sax dañoo war a donnante ginnaaw ku ci ku ci jëkk a dee na ko moroom di doon loolu sax àgg nañ ci ci ak bokko loolu it ku wéyal nañ ko di ko doxal ba ginnaaw badar ginnaaw badar bi aayab alquran wàccee ni wa ulul arhami baaduhum awlaa bi baadin fi kitaabillah ci la doon door a tox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 Euh, mboolem xaajale koy melo ak réew ak askan yépp dafa bëgg mu dañ ci seen biir li ñuy sukkandiku ngir jàppante mbaa ñuy bàyyante daal na doon islaam rek kon loolu mooy maanaam mbokkale gi yonente bi bokkale woon muhaajiroon yi ak ñu daan ko doxal nag mooy mbokkoo googi ñu yëg ci ak dimbalante ak wet di konte gu jaxasoo ci biir mbokkoo googu ba fees société bi del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 waaye nag won leen mu marché bi rek ñu won ko marché ba mu daldi di dem jënd fa aslëf jaay ko am ci bénéfice di yëngatu ci loolu di ci yëngatu ba mbiram soppi ko mu daal di denc ci benn jigéen bu bokk ci lamsaar loolu kon day tegtale ni euh, fi leen yonente bi joxañoon xool nañu ko tegtal nañu lamsaar yi ni ñu faale woon ak ni ñu jàppe woon seen mbokki muhajiroon yooyu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 ci muhaajiroon yi ndax aaya bi di wax walladina tabawau daara wal imaana min qablihim yuhibuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xaajatan mimma uutu wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflixoon loolu yi aw tagg la woowu yàlla moo ko tagg lamsaar yi ci sababu jëflante gu rafet gi daan jëflante ak seen mbokki muhaajiroon yi noonu it la yàlla wàccee aaya tagg lamsaar yi muhaajiroon yëpp Euh, dig leen lu gën a rëy ci li bakkan di bëgg ci yoolub yàlla ci payub yàlla muy wasaabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar walladina tabacuhum bi ixsaanin radia allahu anhum wa radu anhu wa aadda lahum jannatin tajri min taxtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan dalika al fawzu al azim yàlla ba tey tagg na asaabiquuna al awwaluun min al muhaajiriina wal ansaar ak ñi leen topp ci rafetal ba won ne ni gërëm na leen ñu gërëm ko wane ni waaja waajalal na leen aljanna joo xam ni ay dex day daw ca suufam te lañ cay sax ba dàkk muy taxe gi gën a mag ci taxe kon ci mbokk diine googu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boolee xol yi ci mbiri muhaajiroon yi nga xamante ne ay foqaraaw lañ woon mu nos ci seen ngir bu mu tegu caaw mu doon lu yéeme ci wàllug euh, solidarité socialiste bu islam jëmbat ci xol yi ñi ko topp ngir mën a boole kuréel yu bokk bokkul ak dëgëral lu muy jàppante ci seen diggante ni yonente bi defaree diggante muhaajiroon yi ak lansaar yi ci ak mbokkoo noonu la jóge it fasaat beneen pas-pas boo xam ne li muy tekki mooy jullit yëpp la boolewaat ñu doonaan ñu waraata doon benn lépp lu nekkoon ci ay jikkoy jaaxil yu nekkoon ci ñoom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 wala dara loo xam ne bu fa nit ñi jaaree mu leen nga dindee ko ci yoon wi sorel ko ba du lor nit ñi loolu daana wax ne ab sarax la ci nit ki ko daana ko boole it ni ab sell ci sa dingam daana saññi saxaaba yi ci infaq te mooy dépense di dundal di wax ci ngëneelu infaq loo xam ni xol yépp danañ jëkkante jëm ci ndax daana wax ni sarxe dafay fay ñaawteef ni ndox di faye sawa daana wax ni bépp jullit bu woddu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 mu mu daan digle ci biir loolu yi mu lal ay luwaay jéggale ak bale mu daan leen ci digal digle yoo xam ni ba tey mësuñoo xam lu mel noonu surtout ci biir société boobu nga xam ni eh, farfarloo ak kenn ku ne di xool sa intérêt personnel képp ci lañ daan dund lu jiitu loolu kon ñi gënoon a jege Madina ci ñi ay jullit mooy yahudi comme ni ma ko waxee woon léegi yahudi doonte daanañu nëbbu ak noonoo seen diggante jullit yi nëbbu ak noonoo seen diggante yant bi dawuñu ko feeñal dawuñu feeñal it euh, benn jànkonte bu ñuy feeñal seen diggante ak jullit yi seen diggante yant bi xaj na du ci ñàkk sax benn di ko daan feeñal waaye nag ya ca ëpp daal doonte mbañal gi mu ngi ca suufit kaw yi moom ko nëbbu seen kam kat loolu yi ma waral yonente bi fasante ak ñoom kulere goo xam ni la mu saxal ci biir kulere gi ñu fasante mooy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 baladun xaraama muy kenn du fi tour de rente ngir kóllëre nga xam ne fas ni ko la ca desit mooy bépp xew-xew bu am ci diggante yahood di ak jullit bi boo xam ni ragal nañu ci lii ñu doon nos yàqu atte ba na dem ci atte bi nañ dem ci yonte bi sans moom moom ni ni yàlla yoon de nga xam ne fas nañ ko la ca desit mooy bépp xew-xew bu am ci diggante yahood yi ak jullit bi boo xam ni ragal nañu ci lii ñu doon nos yàqu atte ba na dem ci atte bi yàlla agent yonent nañ dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moom ni yàlla yónni mu atte leen ci ni yàlla atte atte bi ba tey ci loxoom lay nekk bokk na ca it ba tey waa Quraysh gee di suñuy mbokk nekk ca Màkka yëpp bu leen kenn fat ci ñoom ku leen fat rek na nga xam dagg na ko léegi doxoon suñu ñoom bu leen kenn jàppale it dinu xeex ku ko def ba tey ko léegi doxoon suñu diggante yàq yow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 Euh, dañoo des ñoom di bokkaale waaye ñooñu amuñ woon ay jafe-jafe seen diggante ak jullit ndax euh, ñu ci ëpp ci ñoom amoon nañu ay sikki sàkka di nattali naan suñu diine yii fi suñu bàyyi bàyyi woon ndax dañ koy bàyyi dem ci diine ci yees yi wala dañu war dem ci diine yees yi waaye nattali yooyu seen nekkoon waaye nekkuñu woon ci loo xam ni euh, dana waral benn jafe-jafe di bàyyi ko ci ñoom te ñu ëpp ci ñoom sax diir bu gàtt dañoo jëbbalu dugg ci islam seen islam rafet kon mushrikoon yi nga xamante ne ñoo desoon ci biir Madina moom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 am ibn Ubay moomu dafa fekkoon bi yonente bi dëggaale di ñëw Madina dafa fekk aw Aws ak Xasraj dajaloo ginnaaw buñ xeexee xare ba ñuy wax xare Buas ñu dajaloo woon ñu dañ koo bëgg a def muy seen kilifa te mosuñu dajaloo ci genn kilifa jëkk ko bi demee nag bay bëgg a doon buur bu Madina nga xam dajaloo nañ ba waxtaane ko ba di ko bëgg a fal la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gàddaay ñëw fi bi ñëwee nag ñun nag ginnaaw yàlla yónni na ab yonente ci ñun kon jaratul ñu tànn ab buur ak dara bàyyi gañ ko fa bàyyi ñu jébbalu ci yonent bi yonent bi sallallahu doon kilifa gi léegi ci la euh, fabee ak ci la amee ak mbañal diggante ko yonent bi ngir jàpp na ni doon waaja amook ngóor la te yonent bi moo nangu ngóor gi ci loxo moom noonu rek la koy gis nag euh, bi mu xamee ni situation yi jàppale wuñ ko euh, moo tax mu feeñal ni jëbbalu na ginnaaw Badar dafa feeñal ak dugg ci diine islam waaye nag lim koy feeñal feeñal nag dafa continuer di nëbbu ak kéefar ca suuf ndax point bu mu mën a am boo xamante ne luy yàqal yonent bi mbaa mu rek dana ko def ñi nga xam ne ñoo àndoon ak moom it doon yaakaar ni bu faloo dana leen falaale ñooñu it dañoo ànd moom ci naafeq googu di ko jàppale ci pexe kon euh, foofii la euh, Madina njëlbeenu Madina euh, bi fi yonent bi doon ñëw kon situation yooyu la fekk ñu doon ko dund noonu it la ko réglé ba lépp féetee ndoo boor waa Màkka nag ñoom ana ginnaaw bu yonte bi gàddaayee ana nuñ def ba bi gàddaayee ña fa des ci ay jullit luñ leen mënal ci ay bon xalaat def nañ leen àgg nañ ci sax bind ab lettre Abdullah ibn Ubay moom mi nga xamante ne moo doon jiitu naafeq yi ni ko yéen yéen a yéen a fat suñu àndandoo bi jóge fii fi na waaye ñu ngi leen di géñal ni da ngeen xeex moom mbaa ngeen génnee ko mbaa ñu ñëw xeex ak yéen ba jàpp si jàpp leen jàpp seen diir maanaam daal am na ay tëkku yu ñu leen doon tëkku ñu mbaa xuree si bind ko Abdoulaye ibn Ubay moom Abdoulaye ibn Ubay bi mu jotee lettre boobu li mu dëkk def mooy daal di jóg dajale ñi nga xam ni ñoo doon ay àndandoon ci way bokkaale yooyu nga xamante ni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 ni leen yonent bi ni leen pexe yi pexe yi ngeen di fexeel seen bopp moo gën a rëy pexe yi leen xoolee seen di fexeel xanaa bëgg leen a xeex ak seen mbokk ak seen doom man bu ngeen xeexee ak man seen i mbokk bopp ak seen doom bopp ngeen di xeex ba mu leen waxee loolu ñu daal di tasaaroo xam ni kon liñ bëgg du mën a nekk ñaareel ba yëpp amuñu woon yaakaar ci ni daal euh, war nañoo mën a jàll mbaa war nañoo mën a taxawal dara lu leer kon loolu mooy mbirum waa Màkka ak ñu joxe waa Madina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 Euh, ci weeru safar la ci atum ñaareel ci gàddaay gi tolloog ci weeru ut ci 623 ci juddub Isa yonente bi ci boppam moo gën euh, bàyyi ku ñuy wax euh, Saad ibn Ubaada ca Madina mu wootu ko fa mu dem dikkaat waaye yëpp nag dafa doon ay leeral yoo xam ne yi ëpp importance ci xare yi moom danañ ko jot li ba mu leer waaye yii moom dama koy tudd rek buñ demee xare yi nañu ko leer moo ko defee ku ci bëggaat mottuli nga dem seeti téere bi ñuy wax Arrahiqul Maxtuum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 Euh, ñu ñëw ci sàmmukaay yi Madina euh, sàcc jur ga daal di daw yonente bi ànd ak juróom-ñaar fukki ci ay saxaabaam doon leen dàq waaye euh, xeex bu jur am bu juróom-ñaar bi mooy raswatu dil mi ngi nekkoon ci jumaadal ula ci atum ñaar ci gàddaay gi tolloog décembre 623 yonente bi bi muy génn mi ngi ànd ak téeméer nit juróom fukk ba àgg fa wax al ashira waaye xare bu jur am juróom-ñetteel bi mooy sariyatu naxla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 bismillahi irrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala alhaadi al amin sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin mbokk yi noo ngi leen di nuyu di nuyu bokki talibe yi déglu ñëpp euh, kon ci noonu ko sëriñ Asan waxee rek foofu nu toll woon ñuy wax ni euh, li xikma ci jàng siira yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy xikma bi nekk ci xissa yi yàlla di nettali yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran alquran xikma yi ci eh, xissa yi ci yàlla di nettali dafa am lu tax mu di ko nettali yonente bi lu tax mu di ko ko nettali mooy bëgg nit ñi def ko ak waarukaay gu ñuy waaroo def ko ab seetu bu ñuy seete bëgg it nit ki di déglu xissa bi eh, jàng ci tayam ndax da yoon wi nit ki jaaroon fakk talu ca nga topp ci ginnaawam gis ne fakk talu na loolu dana la woon aw yoon ba boo ñëwee fa mu fakk taloo nga mën ko moytu yoon wi nga xamante ni nit ki bi mu ci jaaree jaar na ci ba àgg fa mu jëm te amul benn jafe-jafe loolu dana la dimbali yow mi topp ci ginnaawam ngir nga mën a jaar ci yoon woo xam ne yoon wi amul ay pakk amul ay jafe-jafe kon xissa yi yàlla di nettali yonente bi ci alxuraan loolu yi mooy xikma bi ñu itam buñ jógee di jàng siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy bëgg xekk ma boobu yi am ci waaye du càggee ni dañu koy wax rek mu doon waxtaan wu ñu toog waxtaane ko nit ñi déglu ko mu neex ñoom ñu dem mu jeex déedéet dañoo bëgg di jàng jaar jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir di xool moom yonent bi ana nan la daan dunde tàmbulee ci ak ndawam ba ci ak magam nan la daan dundee ci biir société bi mu daan dund nan la daan dundee wàllug euh, économie nan la daan dunde jëkk yàlla di ko terale yonent gi mu ko terale ana ginnaaw bu mu ko terale yonent googu lan moo soppiku ci ab dundam nan la daan doxe ak mbooloo mi mu nekkaloon ci jikko yu rafet nan la fekkoon monde bi moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko yàlla yónnee nan la doon fexee ngir soppi mbooloo moom ci jikko yi ñu daan dund te dëppoo wut ak jikko yi yàlla bëgg ci kaw suuf ana ci yan pexe la jaaroon ngir soppi loolu ana fan la jaar ba gindi mbooloo mi mu gind ba jamono bi ñu toll mën nañ ni jullit mat nañu un milliard ñëpp di jub ci jubug yonante bi sallallahu alayhi wa fan la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon ba liggéey liggéey bu rëy boobu yonante bi nit mënta ñàkk ñu ko contre ñi nga xam ne dañu ko weddi woon ana nan la jëflante woon ak ñoom ñi nga xam ne dañoo nangu wuyu si ab wooteem ana nan la jëflante ak ñoom ana lan moo xàjjale ak yonente gu jóge ci yàlla mi nga xam ne hakim la alim la te li muy indi lu luy nuru ay neen du ko jaare ci kanam du ko jaare ci gannaaw ana lan mooy xàjjale ak diggante nubuwaat yooyu ak falsafa yi nga xam ni moom la mu fakkiroona yi seeni seen i donteenu àddina maanaam lan moo xaajale diggante ak nubuwa ak xalaatu doomu aadama bu bu bu am xalaat rek di tër yooyu yëpp e, lu ñuy jàng ci siira yonente bi sallallahu alayhi wa donte du dikk e, tey du matale tey ji ci dërs yii ci kanam danañ ko ci jàng ci biir dundam boobu moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ko ci ba muy doon gone gu tuuti wala sax ba muy door juddu fi mu jaar ci ak ngoneem eh, ba ni ko nubuwa gi ñëwale ba nim ci ko dunde ci njëlbeenu màkka ni mu demee madina ba ni mu wujjee boromam bisam yu mujj yooyu yëpp danañ ko jàng ci siira yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaye lu mu ci ma doon dafa am luñ ci jubloo jànge eh, ci li ñu jàngoon ci ginnaaw muy tàmbalee ci marxala fi mu juddoo ba fi mu gàddaay eh, ñu bëgg cee génnee ay dërs ay dars yoo xam ne day am luñ ciy jàngate jubluwuñ sax ni dars yi danañ mboolem li ci nekk ci luñ ci war a génnee danañ ko mën a génne de suñu xel du matale loolu waaye ci kem li yàlla li nu yàlla xéewale ci ak dégg danañ ko ci génnee leeral ku nit ñi li ci des ñu bàyyee ko mbokk yi kenn ku ne boo dégloo siira bi du ñàkk sa dégginu bopp woo ci dégg mën naa am sax nga dégg ci junni junni déggin yu ëpp déggin yi ma ci dégg ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni rubba xaamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu nit ki mën naa yor a fiq yóbbu ko ci kooku ko gën a dégg kon damay indi fiq bi waaye maa ngi am yaakaar bokki jullit yi déggin wi ma ci am ñu dégg ci déggin yu ëpp yooyu ba njëriñ li mën a gën a mën tasaaro loolu rek mooy yéene ci ñu tàmbalee ci tomb bu am solo muy mboolem historien yi ak bindkati siire yi dañuy tàmbalee ci di tudd askan yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu dafa yell ci sàkkukatu xam bu ne mu am ci ab gës-gës am ci ab settantal ndax bu ñuy tudd yonente bi tàmbulee ci tudd aw askanam ni mooy Muhammad ibnu Abdillah bin Abdil Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdu di ko topp ba ci ñaar fukkeelu maam ak gan foofu ñu yem yonente bi moo daan tudd ay maamam bu masaan agsi foofu yi ci Adnaan fi la daan taxaw daana leeral it ne Adnaan moomu ci waladu Ismaayil ci la bokk waaye bu ca masaan agsi nag day taxaw ni kasaban na daane waaye nag nettalikati askan yi nag mën nañoo fen foofu rek lay yem ñu dégg ci kon li tàmbalee ci Muhammad ibn Abdillah ba ci ñaar fukkeel ak benn ci ay maam loolu moom leer na nattali amu ci waaye nag la ca tàmbalee ñu di kon tudd boobu ba muy àgg ci aadama nag loolu moom ay lënt am na ci mana a wér mën a bañ a wér fii daal la yonte bi daan taxaw waaye rek li ma jublu rek mooy lu tax historien yi ak bindkati siré yi di tàmbalee ci tuddu ay baayam ak i maamam ndax loolu e, mën naa yóbbu lenn ci nit ñi mu indi leen am lënt ci ñu jàpp ni aw askan dafa bokk ci e, diine dafa doon loo xamante ni lu ñuy xalamaale la ci diine Euh, ndax euh, kii boobu ñu ko jox ndax gëdd ko jox te fekk euh, xalaat boobu rek moom la islaam ñëw ngir màbb ko islaam dafa ñëw ngir màbb ni aw askan taxawut li taxaw dëgg dëgg mooy gëm yàlla ak ragal ko ak jëf yu baax wax ci alquran ni yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa yéen ni ñi de dañu leen a bind ci góor ak jigéen wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila def leen ngeen di ay peuple doon ay kiir waaye nag lépp li temps arafo ngir ngeen xamante loolu la ci jublu ngir nit ñi mën a xamante gi mën a jàppandi moo tax mu xaaj ko ay xaaj noonu def ñi ñu bokk gën a jege wante waaye ñëpp ay doomu aadama la ñoon mu ne nag inna akramakum indallahi atqaakum ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen kon loolu yi mooy li ñor diine eh, léegi nag yonente bi dikk ni laa fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa ab arab gënewul ab ajam dara lu dul ci ak yàlla baaxub doomu aadama dañoo baaxoo di ndamu ci ay askan nga xam ne kenn ku ne askan wa nga danga koy topp di ko taqdis di ko sellal di ko fóorise foor boobu nga xamante ni yàlla fekk na ko nit ñi di ko dund mu mel ni dafa doon seen aada ju ñuy dund moo tax mu tànn yonente yi ci néeg yi gën ci néeg ngir eh, buy indi ak nubuwaam it fekk na la nit ñi doon xool ci ak tànn moom fekk loola jëkk na ko tànn ba noppi muy boole na ko ci askan yéen nit ñu tànn ni ñooy askan yi gën mu tànn ci ay yonente waaye bi mu leen ci tànnee lépp ba noppi nag da leen a defal ci ay jikko ak i melokaan loo xam ne la la ñuy rawee nit ñi ba nit ñi man leen koo roye kon li tax bind kati siire yi di tàmbalee ci loolu yonente bi daan ko tudd euh, loolu mooy nit ñi la ñu fekk ñu gëm loolu gëm aw askan di ci sukkandiku di ci ndam yàlla won leen ni leen kii ma yónnee nii ci ñi gën ci ñi ngeen di tànn ci laa ko tànn léegi nag door a nag la ko ñor def ko ci moom muy jikko ju rafet ak i melokaan ba nit ñi man koo roy kon loolu dafa doon tomb bu am solo boo xam ne euh, leeral gi da cee baax ndax nit ñi man cee yeewu man cee yeete euh, bañ bañ a tarxiis di dugg ci lenn ci euh, yoon yi nga xam ni lennati euh, lennati arab yi ñoo koy sos ñu di ko tuddee al qawmiyatul arabiya am na ci ñoom ñoo xam ni euh, lépp dañ ko tënk ci ak arab ba àgg ci am na ci ñuy wax ne xasbuna na arabun ñun doon gënu doon ay arab rek doy nañu te loolu day daal di dëppoo ji ak la euh, lañ daan bind ci jamono yi Hitler ñu koy bindee Allemagne fawqal jamii lañ daan bind Allemagne moo nekk ci kaw ñëpp bu boobaa loolu day daal doon guerre boo xamante ni kenn du xam fu mu yemee waaye nag euh, dañ koy dañ ciy yeete rek nga xam ne islam am na beneen affaire bu ko ñor bu bokkut ak aw askan bu bokkut ak al qawmi al arabiyya bu bokkut ak xeeti race mi ngi xew lépp ci kon loolu ay tomb la rek yu ma bëggoon a leeral noonu tuuti euh, léegi nag bu ko defee euh, muy ñu jàll ci beneen tomb tomb bi nga xamante ni léegi am na lu ñu ci war a déggee am am ci lu ñu ci war a jàng mooy tomb yonente bi ku teel a ñàkk ay wayjur la teel a ñàkk ay wayjur la te teel a ñàkk wayjur euh, daana yóbbu nit ki ci ak sànkute bu dee ci ab yar mën naa ñàkk yaru bu dee ci ku ko taxawee ba teg ko ci aw yoon it mën na koo ñàkk euh, loolu kon teel gi yàlla teel a ñàkkal yonent bi ay wayjur am na benn xikma bu ci nekk xikma ba ci nekk mooy ki daan ñàkk wayjur lu ci ëpp day day na ku ko ku ko yar jàngal ko daf koy ñàkk waaye yàlla jubloo wane tawxiid bi mu jubloo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu tel ko ñàkkloo ay wajur ba amul ko ko yar amul ko ko jàngal amul ko ko teg ci aw yoon yàlla ni nga xamante ne moo ko bind yo fas ko yéene yónni nag féeti woo ay mbiram loolu kon ab tomb tawxiid la bu ñuy jàngee foofu yi ci ne tawxiid bi mu jubloo jàng rek yàlla feeñal na ko ci ay mbiram ba ca teele ba dara daatan xew moo tax mu ne ko alam yajidka yatiman fa aawaa wa wajadaka daallan fahada fekk naa la nga doon ab jërim ma tàppoo la fekk naa la it nga réer ma gindi la te ñaar yooyu lu daan jafe la ci euh, ku teel a ñàkk ay wajur waaye yàlla da cee bëgg a wane xekk maam foofu te yonente bi mooy ngeen ji misaal ci ay teggin ak xam-xam akum koom ndax lu ci ne rek dem na ba giijal ci bu dee ay teggin ab yemukaay la ci bu dee xam-xam ak nubuwoo doy na ci ak yumukaay bu dee am koom yonente bi daana dem ba joxe ndoo ñeenti téeméeri gileem ci benn jotaay loolu lépp nag teewut mu daan dund ak fakkaru moom ci jëmmi boppam waaw li daan mën naa xëy ci benn jotaay mu joxe ci lu ñeenti téeméeri gileem waaye teewul ci ak fakkaru la daan dund daana xëy xiif lool dem ci néeg soxna Aïcha laaj ko ndax dara néew fi mun ko dee wax dëgg dara néew fi daana xëy euh, daana jëkk bu guddi mu yeewu di doxantu Euh, benn bis mu yeewu di doxantu dajeek euh, Abu Bakar ak Omar mu laaj leen lu leen génnee ñu ne ko ab xiif de mu tax a génn mun leen di leen génnee de moom a génne bi ñu waxee loolu ñu ànd dem ci kenn ci benn kër ci kër yi lamsaar yi waaye bañ demee kooka am ci mbégte lool daal di wuti ab gàtt daal koy rey defaral leen ñuy jëfandiku ci waaye ba ñuy génn ab xiif rek leen génne woon te amuñu fenn fu ñu mën a jëm fu dul euh, sàkk pexe kon noonu léegi danañ dégg ci li ñu jàngee woon ci melukaanu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax soxna Khadija tànn ko jox ko aslëf ci marchandise mu dem saam bu mu ñëwee it ci biir loolu ci la sukkandiku ba tànn ko bëgg mu féete woo ko def ko soxna loolu danañ ci dégg ni jikko yu rafet dafa doon lu ñu soxla ci ab société jikko yu rafet ni ñu soxla fépp lañ ko soxla ndax yonent bi euh, ci biir jikko yu rafet ci la ko soxna si tànne yëkkati alalam jox ko ci biir jikko yu rafet ak matale gu matale lañ seqoon euh, ci la soxna si jaar ba sàkku ci moom mu denc ko ci biir jikko yu rafet ci la ko nit ñi wóoloo woon ba daan fab seeni alal di ko ko dénk te booba nubuwa gi ñëwagul ñu xamee ci ni kon jikko yu rafet moom dafa doon lu lu ñu itte war a ci àdduna bi ak fu nit ki mën a nekk loolu ñu itteewoo nit ñi ci seen jëm bopp ñoo ko soxla ñoo ko itteewoo dañ ko daan dénk seen i muy génn di gàddaay sax dafa fab mboolem ndénkaan yi desoon ci ndénkaan yi jox ko Ali ibn Abi Talib ni ko toogal ba delloo mbooleem nit ñi seen i ndénkaan doon maa dab dégg ca ni e, nit ki e, jikko te mooy am kóolute dañ ko soxla ci nit ak fu mën a nekk nit ñi ci seen bopp it ñoo ko soxla ak xaqiida buñ mën a dund bu ñu jàmm xiram soxla nañ ko bu ñu doon ay jullit soxla nañ ko bu ñu doon ay nasaraan soxla nañ ko bu ñu doon ay yahoot it soxla nañu nit ku yor jikko ju rafet pour mën a ànd ak moom danañ ci dégg ni jullit soxla nañ ci moom mu am kóolute maanaam na am sécurité koluté ci digganteem ak nit ñi ba ci digganteem ak ñi mu bokkalul pas-pas sax soxla nañ nga feeñal euh, jikko yu rafet ci diggante ak ñoom ndax loolu ñu ngi koy dégg ci yonent bi mbooloom xuraysin biñ tabaxee kaaba gi ba àgg ci di seet ni xajarul aswad lañ war a teg te xajarul aswad mooy li gën a tedd ci eh, birig kaaba ñu ne kon kan moo ko war a teg ñu terale ko ko léegi bañ ne ku jëkk dugg si rek moom la ñuy àtte woon lu ñu doxal ko yonente bi moo jëkk dugg si ñoom ñëpp dañoo d'accord ci ab àtteem te dara wëralu ko lu weesu melokaan yu rafet yu meloon njëkk loolu te boobu sax bokkut ak ñoom pas-pas bu ñu wax waaye te ciy dégg ni jikko yu rafet dañ ko soxla ci nit ki rek li ñu jàngoon danañ ci jànge ne kuy woote jëm ci moo xam diine ngay woote wala ngay woote jëm ci ab tariixa wala ngay woote jëm ci ngirum politique walla dara loo gëm looy woote jëm rek euh, lim laaj mooy nga teey ndànk par ndànk ndànk par ndànk dara xëyut sotti loolu ñu ngi koy déggee ci ni yonente bi sax bi ko yàlla doon yónni daf ko jox ndigalul ni ko li ngay woote na ko woote ndànk ci suuf nga xam da doon topp ay xaritam di wax ak ñoom ci li ko yàlla yoon ñuy nangu kenn par kenn ndànk par ndànk ba ngir loolu lépp rek mi ngi doon ragal bett nit ñi ak loo xam ne xamuñ ko woon te mbetteel kooku mën na leen a ñu far gàntal moo tax di ko def ndànk par ba nit ñi nga xamante ne àggagul ci ñoom it danañ dégg ñu ne mu ngi woote nangam dégg ñu ne mi ngi woote nangam te agseegul ci ñoom googu sax am na lu mu leen di jariñ ci woote bi bu agsee moo tax bokk na ci xikma ci kuy woote jëm ci yàlla nga ngay def étape par étape ndànk par ndànk bañ a jékki-jékki rek ni teel ni li ma bëgg day sotti mbaa mbaa mbaa àddina tukki loolu du xikma kon dinañ ko jàng ci ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam doxalee ci njëlbeen jàng nañ ci biir marxal boobu euh, taxawaayu jigéen ci islam soxna Khadija euh, bintu Xuwaylid suñu euh, jigéen ñi mën nañ ci jële mën nañ ci jëlee rawatin euh, rawatina ci jamono bii nu toll nii nga xam ni tool yi bari na ci ñu naan islam dafa joxul jigéen ak àqam islam dafa nangam islam dafa lii dafa laa di ko tuumal tuuma yu bari bari euh, jigéenu jullit am na dërs bu mën a jëlee ci soxna sosu la ci jëkk la ci jëkk ci luñ ci mën a jànge mooy xel mu rafet takkuwul ci góor takkuwul ci jigéen ndax ngën ji mbindeef gëlëm na mu yonent bi sallallahu alayhi dem na ca xuntima ak wax yu fekk ko fa loola tiitloo ko ba bi muy ñëw ci këram daf doon lox di wax ni zammi loo ni muur leen ma ñu muur ko mu lox ba lox ga dal mu wax soxna si ni ko man de damaa tiit ci sama bopp damaa tiit ci sama bopp waaye moom moo ko dalal moom soxna soosu kon ngën ji mbindeef gën a mat ci nit ñi am xel yàlla tànn ko ci nubuwa gi ba mu jaaxle jigéen na ko dalal te ba mu ko dalalee dalal googu am na ci njëriñ soxna si moo ko dalal ni ko ni ko kalla wallahi laa yox siika allaahu abadan ni ko déedéet yow de yàlla du la gàcceel mukk ndax danga nga jokk bokk da nga berndeel gan da fekk ku lot nga gàddu ko da fekk ku ñàkk nga di ko dimbale lépp luy xew-xewu dëgg yi dañ ci jàppalante ak nit ñi kon yàlla du la gàcceel mukk ci àdduna daal ne ko jógandam daal di koy jël ànd ak moom ba ci ku ñuy wax Waraxa ibnu Nawfal te Waraxa ibnu Nawfal moom dafa doonoon borom xam-xamu ahlu kitaab ci la bokk doonoon borom xam-xam jël gi ko jël dalal xelam ba noppi yóbbu ko ci borom xam-xam bu ci war ba mën xam dara képp rek moomu xel euh, dégg nañ ci ni xel mu rafet te tëkkuwul ci góor tëkkuwul ci jigéen loolu luñ ciy jëkk a dégg la ñaareel ba it mu doon royteef ci sunu jigéen jigéeni jullit yi ndax ab commerçante la woon moom soxna Xadija da daan fàggu ba am ci cër bopp xale yu góor yi dëkk bépp dañuy ñëw ci moom muy fab eh, ay marchandise du leen ko jox ñu di ko jaayali am cër buñ ci war a am ci buñ ko jaayee ba noppi ba ci biir loolu ci la yonante bi sallallahu alayhi wa ñëwee ci moom mu jox ko ab cër ci marchandise mi mu dem dikk ba mu gisee ci moom jikko yam ci gis ci la sàkk ci moom mu denc ko kon ba tey euh, loolu ab dars la bu ñuy jànge ci soxna si ci ni euh, jigéen euh, taxuta doon ab yaafus jigéen taxuta ñaaw am xel jigéen am na rôle bu mu war a suyee ci biir société bi muy dund loolu jullit bi mën na koo jànge ci soxna Xadija ci lu dul muy dem ci ay Europe ak Amérique di ko fa jànge ci te it euh, mënees na koo roy ci xel mu rafet mi mu yor ba tànn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sàkk mu doon borom këram te boobu day yonente bi amul daraja ndax du nuboo gi ñëwagul ba kenn di ko topp amul it alal ndax ci moom la sukkandiku ci lu mu koy jox mu di ko jaay di ci am bénéfice kon xam nañ ni alal taxutoon mu topp daraja jum amit taxutoon muy sàkk ci moom mu denc ko kon loolu ba tey doon na bind bu ñu war a roy ci moom am lu ñu ci dégg ci ni léegi nit ki Euh, jamono bu ne war naa xam ni madda te mooy matériel bii xew léegi diggante ay tabaxak ak ay kër ak alal yu ñuy dajaleeg yooyu yëpp wasiila la war a doon te mooy aw yoon la wu ñu war a doon ngir wu ñu war a jaar ngir sàkku ji dara waaye du ab yamukaay nag boo xam ne ku ci ak da nga war a taxaw am na leneen lu ko gën a for leneen la ko gën a for nag soxna Xadija moom la xam ba di ko sàkku ji ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy makaarimul kon loolu ab euh, la bopp waxuma sax jigéen ñi dañ koy jàng ci moom waaye jullit yépp loolu war nañ ko def mu doon am njàng mu jàng ci soxna sos ci dërs yi ñu weesu ba tey jànge nañ ci ni nit yi jamono yi léegi ji ak nit yi jamono yi démb ñoo bokk wenn melokaan wuñ mel fii nit ñi jaar jamono bii nu toll muy dara ñoru leen lu dul alal dara ñoru leen lu dul wërsëg dara ñoru leen lu dul xëccoo ay personnalité moo fi nekkoon démb ak bëkk démb loolu danañ ko jàng ci def yi ñu wees ndax dara loo xam ne dana soppi seenub dund lu mu mën a doon dañ koy gàntal ca saase bu fekkee dëppawul ak seeni bànneex te mooy ni Qurayshin doxe woon ak yonante bi sallallahu alayhi wa du soppiku usloob nit du soppiku ci seen melokaan du soppiku ci euh, nit ki wala boog euh, doxin wi nga xamante ni Eh, moom la yéefar yëg ñëpp di ko dox lekk muy mooy nit ki benn nga xupp ko bu ñëw fekk si la mbaa nga ger ko pour mu fekk si la dafa mel ni xupp ak ger mooy ñaari mbir yi nga xam ni moom la fi yàlla indi ci kaw suuf xamuñ beneen tarixa ñetteel boo xamante ni dinañ ci jaar pour sàkkoo ko seeni bëgg-bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee di woote anduñ ci woote bi muy woote lañ jëkk def mooy dañ ko xupp ba xam xupp bi dana am njariñ wala déet ba mu amul njariñ ñu ger ko ger alal ak ak ngóor ak daraja waaye xupp ba amul njariñ ger biñ ko gënoon ger ci ñett yooyu it bi mu jàkkaarloo ak pas-pas bu dëgër pas-pas ba daf koy bëmax rek mu daal ndax yonente bi da leen ni giñ naa ci yàlla ni bu ngeen faboon jant bi teg sama loxo ndijoor fab weer wi teg ko ci sama loxo càmmoñ bëgg ma bàyyi lii mu nga xam ne moom la sama borom digal du ma ko bàyyee te du sama borom moo ma digal xamante ni kon pas-pas bu dëggu ci xol Euh, kàttanam yemut ak genn kàttan ci àdduna lu dara am am am doole rek looloo ko ëpp doole lor nañ ko moom ci jëmmi boppam moom yonent bi sansom jullit yi nga xam ni ñoo jëkkoon ànd ak moom it bundu xataal yu metti ak lor yu metti dal na leen ci islaam waaye lu lépp delluloowu leen gannaaw dañoo muñ sàkku ab yool te xam ni yàlla ñii muñ laa àndal loolu ba ab leçon la boo xam ni euh, lu war a jàngale ndax àdduna la fi jaaroon ba jàll li Ibnu Khaldun ab euh, historien la boo xam ne wax ni àdduna jamono bu ne sa démb man nga koo jàng ci tey tey it mën nga cee jàngi ëllëg ndax àdduna ni mu niroo mi ngi mel ni ndox ak ndox niroo léegi lépp lu daloon nit ku sóobu aw yoon pas-pasu jullit te bëgg a dëggal lépp lu ko daloon ca jamono boobu kooko ko sóoboon jamono bii ñu toll nii dana la dal te daloon kooku dana la dal léegi danañ la woyafal danañ la bund danañ la lor ci wax ak ci jëf waaye nag fa ñooña jaaroon ba jàll it yow mii fa toll foo ngi mën a jaar pour jàll wenn la déglu leen li yonent bi wax yonent bi nee na lor nañu ma ci yàlla lor joj mësee futa lor kenn lor ju ni mel tiitloo nañ ma ci yàlla tiitloo ko mësee suti tiitloo kenn tiitloo ko ni mel daanaa toog maag bilaal fanweeri bis ñëw yoo xam ne maag bilaal ñu am lu boro mu des di lekk lu dul loo xam ni boo ko boo ko dugaloon ci poqtaanum bilaal kenn du ko seen maanaam tuuti la ñuy yor di ci mos ndànk par ndànk diirub weer moom bilaal loolu daanañ ko dund moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi bi mu jógee màkk ak coono yi ñu ko fa sonal ak bu ndoxataal yaag ñàkk donc ñàkk a wujji ba mu amee jaaxale ba dem taayif far taayif rawati euh, foofu am na dars bu mu fi jàngal dars bu mu jàngal mooy mooy ab jullit bu pexe yépp jeexee mu xool xool xamul fu muy jaar na dellu ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jaaxlee Makka am yaakaar ci waa Taif dem Taif ñooñu raw waa Makka ci ak gàntal ba bunt yépp sakkee dafa dellu ci yàlla daal di ñaan euh, ñaan gu siiw googi muy allahumma inni ilayka ashku du'fa quwwati wa qillata xiilati wa hawaani ala almaxluqin yàlla yow day laay jàmbat nii ma néewee doole ak nii ma néewee ay pexe ak euh, nii ma nit ñi woyafale loolu yow laa koy jàmbat yow yàlla kon loolu ab dërs la boobu dañ ciy dégg ni jullit saa bu demee ba gag xool bunt yëpp mu sakk na delluwaat yàlla yàlla rek moom mën a sakk ci bunt yi won ko ab bunt bu jaar jàll loolu ab dërs la bu ñu war a jànge foofu yedd gi yàlla yaddoon yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ci sababu abdullah ibnu ummi maktum loolu ba tey am na luñ ci war a jànge eh, ndax danañ ci gisee ni nit ki daraja bu mu mën a am moo xam ci wàllu xam-xam la walla dafa am daraja ngir diine jum am ba nit ñi réel ko mu am daraja ngir diine jooje wala daraja jum mën a am ci wàllug eh, màdda mooy alal ak lu mën a doon lu la mën may alal rek léegi war ngaa bàyyi xel ña néew doole bay jëflante ak ñoom jëflante ak nit ak nit te yàlla képp tax dët sup uh, Abdullahi ibnu Ummi Maktoum ñëw ci yonent bi fekk yonent bi wax ak kilifa yi Qurayshin uh, ñëw gi gumba googu ñëw doon ak gumba ba noppi doon ak faqiir uh, xatal gim xatal jataay bi ci moom ba tax mu soppi xar kanamam walbati ko woon ko gannaaw yàlla yedd ko ngir defin woo mu def loolu dafa doon ab si bopp euh, ku ne rek war nga ci jëlee am njàng ndax yàlla moo def adduna euh, muy ay étape euh, ku ne rek am na ku la kaw am ku la suuf am koo xam ne sama morom la yéen a toll benn boroom xam-xam bu wax ni wamal maru illa wahidun min nit ki kenn rek la maa doon ci ñett ñi ma leen di bëgg wax wamal maru illa wahidun min salasatin sharifun wa mashrufun wa mislun muqawimu ñett kenn la ci ñett ñooñu benn nga nekk ci kaw mbaa nga nekk ci suuf mbaa nga ak ki nga tollal ki la féete kaw ki la féete suuf ak ki nga tollal kenn ci ñett ñooñu nga mën daal ni fa ama alladi fawqi fa arifu qadrahu wa atbaahu fihi alxaqa walxaqu laazimu daal ni benn nga nekk ci kaw mbaa nga nekk ci suuf mbaa nga ak ki nga tollal ki la féete kaw ki la féete suuf ak ki nga tollal kenn ci ñett ñooñu nga mën daal ni fa ama alladi fawqi fa arifu qadrahu wa atbaahu fihi alxaqa wal xaqu lazimu daal ne ki kaw damay xam darajaam jox ko àqam ndax àqam dafa mu doon lu war wa ama alladi duuni fa in qaala suntu an ijabatihi irdi wa an la malaim ki nga xam ne moo ma féete suuf it bu waxee danaa ñoŋal sama der ci tontu ko euh, ak di ragal nit ku ma yedd daal ne wa ama misli fa in zalla aw hafa tafaddaltu innal fadla bil xilmi xaakim ki nga xam ne sama morom la it benn mu joom mbaa mu rëcc le lu mu ci mën doon bu ko defee dinaa feeñal sama ak ngëneel sama diggante moom ndax ngëneel mi ngi nekk ci ni nit ki lewete ak ni mën a jéggalee ak ni mën a jëlale kon euh, foofu danañ fi jàng dar suuf ni euh, nit ki fu mu mën a toll ak dara ji jum mën a doon rek war nañ bàyyi xel ña ko fete suuf ngir jox leen euh, gëdd gi ñu am gëdd ak doomu jamono bi ñu toll ñu ngi dund jamono bopp Euh, daanaka nit ki boo amul ab cër ci alali àdduna kenn du ko gestu kenn du ko limaale ci dara dem nañ ba sëriñ gii ñuy dund sax dañ sëriñ ba nga xam ne yoru dara nii di dund xaj ne ku ci dund tasawuf bu jëkk ga jëkk nga xam ne ñaari dërëm yoroo ko nit ñi dañ naan kooku bu mënoon a ñaan boppam lay jëkk ñaan ba noppi léegi duñ fa jaar duñ benn baat duñ la ko wax ndax dañ naan li muy woote wérul te fekk ne euh, wàllug euh, màdd ak wàllug ruux dañoo bokkul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni adduna euh, bu fekkoon ni dana peese fa yàlla kem laa fu yoo rek ab yéefar du fa am góoxum ndox bu mu góox alxayaatu ruuxiya te mooy dunduk ruu euh, mooy li nga xam ni mooy liñ nekk ci njëlbeenu li yonent yi doon woote te dafa mel ni ruu ak màdd ñaari wujj lañ yoo xam ne loo ci d'accord koo ci d'accord rek kajara du ngeen mën a def du ngeen ki saa bu dundalee wàllug euh, yaramam ci lekk ak naan ak nelaw xool lu rafet ak yu demee noonu bu boobaa roo gi dafay dal di gëmm waaye saa bu dundalee ak room ci xañ ko ay bànneex muy néew ak lekk néew ak naan néew ay nelaw néew ab jaxasoo bu boobaa dañuy gis mu mel ni lu rayee yaram wi waaye nag dund googu dafa gën a for jëmmi doomu aadama dañuy wax ni ñett yooyu ci lay dund muy alxayaatu ruuxiya wal xayaatul xaqdiya wal xayaatul badaniya maanaam nit ki ci yaram lay dund ak ruu ak xel yaram nag lekk ak naan ak ngelaw ak xool rafet ci lay dund bu dee xel moom ci xam-xam ak gëstu lu ci aju ci lay dund bu dee ruu mi ngi dund ci wàllu jaamu yàlla léegi nag nit ñi dund googu ma jëkk a tudd muy dund gi nga jëkk jot rek muy dund yaram daanaka moom lañ moo leen gën a ñor waaye nag dërs boobu bii nga xamante ni yonent bi mi ngi doon wax ak kilifay Xuraysin Abdullah ibn Maktum ñëw bi mu ñëwee mu xatal ko ba tax mu mu won ko gannaaw daal di ñëkkal kanamam te yàlla yedd ko ci ab dërs la bopp waras na cee jëlee euh, njàng mu bare bare ci jamono bi ñu toll ak euh, nii euh, madda ëppe dole dunduk ruux na benn may wax ak sama benn xarit ni ne ni ma la gisee xaalis képp moo la ñor mun ma nag dafa ndànk wax li tax xaalis ñor ma man ko mun ma damaa gis xaalis boo ko yoree bu dee nit ñi ñuy tuddi nit yàlla boo fa demee da nga jàll nit ñi ñuy tuddee nit yi àdduna it boo ko yoree boo fa demee da nga te boo ko yorut fu ci ne boo fa demee doo jàll rek da ngay taxaw ci diggante moo tax ma di ko sàkk bëgg ko mu képpale kooku neen li tax mu bëgg xaalis moom mooy gis na ni problème bi nit di am bépp jamono bii ci li mu gis moom mooy ñàkk xaalis boo xasee yor jaaxle loo leneen la ngay la ngay mel ak la ngay doxee loolu kenn du ko lijjanti man ko loolu mënuma ci dara ndax loolu loolu yi nga wax ni dama ko dama ko dama ko teg bët moo tax waaye nag siira yonte bi jamono bu ne rek am na lu ci jullit yi mën a jànge am luñ ci mën a dégge ci seet nu ñuy dunde seen adduna ba noppita du yàq dara ci dund ba àllaaxira wala tansa nasiibaka mina dunya loolu eh, mooy mooy wabtaxi fi waaye nag wala tansa nasiibaka mina dunya mooy jamono bu ne àllaaxira la jiital ginnaaw bu mu jiitoo ba noppi nag mu doole ne waaye nag bul fàtte li nga am ci adduna ñàkk fàtte nag léegi tekkiwul nga fab sa lépp jox ko ko léegi ba tey Walid ibnul Muxiira xam nga dafa wax ne ci biir wax ji dafa wax ne ndax Muhammad moom bu ñuy wàccee ak waaye ci moom la ñu koy wàccee bàyyi ma taman maay kilifa Xuraysin di sangub sangub Xuraysin ndax Muhammad dañ koy bu ñuy wàccee ci moom la ñuy wàccee di bàyyi diw ak diw loolu it ba fii nu toll nii mooy dox ci jamono léegi ji waaye nag fekk ne ñu jël ci ñu war cee jëlee ab dërsum ni eh, ci aaya boobu yàlla wax foofu ni wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajaatin li yattaxiza ba'duhum ba'dan suxriyyan wa rahmatu rabbika xayrun mimmaa yajma'uun loolu dañu see jubloo jàngal ñu ñu war see jàng it ni xam-xam ak alal ak daraja ak kilifteef gu mën a doon euh, ndimbalul yàlla la ak xéewalam gu muy xool ku ko neex ci ay jaamam mu xéewale ko ko waaye tëkku ko ci diw doomi diw tëkku ko ci diw ci famille sàngam la bokk tëkku ko ci diw réew sàngam la bokk ba tax na ab jullit yàlla jàngal na ko foofu lu baax li yàlla def ci nit ki mu nangul ko ko bañ ko ko añaane yéene ko ko bu dee lu baax lu mu war a jëlee mu dem jëli ko te bañ koo bañ fenn bañ koo bañ bañ a jële fenn ndax yonent bi nee na al hikmatu dallatul mu'mini aynama wajadaha axasaha léegi lu baax lu réer la lu ab jullit moom fu mu ko fekkee rek daf ko war a jël kon léegi loolu danañ ci jëlee ab darsub euh, jël lu baax ak fu mu mën a nekk euh, jël ci darsub yit ni yàlla mooy seet ku ko neex mu defal ko ngëneel ci wàllu xam-xam ak alal ak daraja waaye du caagee ni nit ñi na mu leen neexee la ko yàlla itaana di ko ne defee déedéet kon euh, loolu ders bu am solo la bu ñu war a jël ci lool yi bi muy jaayante moom yonent bi sallam ak waa Madina ci bayhatul Aqaba dafa am ñeenti mbir yu mu leen wax muy ngeen jaayanteek man ni yàlla du ngeen ko booleeg dara du ngeen sàcc du ngeen njaaloo du ngeen ray seen doom kenn du fi indi aw fenn u muy indi ci kanam ak gannaaw te du ngeen ma mooy ci ci aw yiw juróom benn mbir yooyu mu ñoom la ca jëkk mooy al ishraaku billahi mooy bokkaale la ca topp mooy sàcc la ca topp mooy njaaloo la ca topp mooy euh, ray sa doom la ca topp mooy fen la ca topp mooy ñàkk topp ndigal yooyu noonu ko yonente bi doon jaayantee ca bayxatul xaq ba nga xam ne ca njëlbeenu dina islaam la tey tey tey lañ ko gën a soxla ba fii nu toll nii yii nga xam ni moo yàqoon société boobee te yonente bi ñëwoon di ko defar ba fii nu toll suñ société bi léegi bi kon jamono bu ne jullit yi war nañuy bàyyiwaat xel yooyu la ci jëkk mooy bokkaale ab jullit li muy jëkk moytu mooy bokkaale na fab yàlla xam ni mooy yàlla lu du yàlla du yàlla suñu bàjjaxate wax ni jullit du yàlla yéefar du yàlla dara du yàlla yàllaa du yàlla moom ñoom tawxiid Sëriñ Tuubaa jàngalu na leen ko ba des koy jànge ci ñoom waaye doonuñ ñoo xamante ni kenn dana jaar ci dana topp ci seen gannaaw ba noppi di di di manqué tawhid mbaa ngi di ko néew de damay yaakaar ni sax léegi ku ko manqué la xaj na ñàkk goo wax ñàkk xam li Sëñ Tuubaa woote woon mbaa nga xam ni mu yare woon ay magam moo lay dal muy fii muy feneen ak feneen ak feneen waaye damaa jubloo andi misaal rek ci Sëñ Ba Jaxate ci ni mu waxee ci wàllu tawhid nga foo xam ne dafay tagg Sëñ Tuubaa ba ko ba ne ko sa fan yu ne wéy sa jëmm ji wéy ñu topp lay wéy tofal la woy foo jëm ñu wër la ngir jëm yàlla ka tax ñu gëm la ba jox la mbiri kon koo fa mu war a teg Sëñ Tuubaa teg na ko fa te taxul luy niroo ak bakkaale gi ñu ko mën a tumaale jax mu jaxase ko foofu ci diggante loolu ma jublu wax rek ni juróom benn yi yonente bi doon wax ak eh, waa Madina ca Bayhatul Aqaba tey lañ ko gën a ittiwoo ndax ba fi mu toll mi ngi eh, dox te lu yàqu ci am réew loolu ko yàq bokkaale moo ci jëkk ab jul di ko war a moytu sàcc bari nañu woyofal lool sàcc nga xamante ne lu ñu jàkku rek jël ko waaw fu ñu ko gisee bu ñu gisee bëgg dañuy jàpp ne léegi moom sàcc moom yàlla waxu ci dara njaaloo lu sax moom xaj na ray moom du habitude Sénégal waaye xanaa moom loolu ñuy wax euh, planning familial nga xamante ne rek da ngay jël ay comprimés ngir wàññee ko am nangam nangam yëpp day mel ne day dugg ci domaine u rey nangam nangam waaw loolu damaa wax rek ne lu tasaaroo la ba jamono bi ñu toll nii ittewoo nañu ko ni ko yonente bi ittewoo woon ñu jaayanteeg moom ci jamono boobu ci bay xatul xaq ba ci njëbbi lu màkk boobu kon loolu ab leçon la bu ñuy euh, soxla ci jamono bii ñu toll euh, ci jullit yëpp nag ci penkook sow jullit yëpp itoo nañ ko jamono bi ñu toll. kon biñ jógee ci taif ci ak dégg yooyu ñu dégg foofu ñu jàll ci euh, gàddaay gi yonente bi sama sama gàddaay yonente bi gàddaay gi mu gàddaay mook ñim àndal ci jullit yi jóge Màkka dem dina defu ko ngir daw loolu la ñu war a jàpp defu ko ngirug ragal defu ko ngirug naagu yërmande yàlla defu ko it ngir ni ab tukki la boo xam ne day dem noppali bakkanam foofa ngir fi coono bi daa metti ci coono bi woote bi dafa waaye gàddaay gi doon ab baaraas bu dox diggante dëgg guñ doon néewal doole ci béréb ak dëgg gu nekk ci béréb lii ba dafa ba mën a dox na mu ko bëggee dëgg gi genn nekk na màkka ñu di ko fa bund xatal di ko xatal ba na mën a dox doxu ko ñu fab baaraas doxali ko ci diggante ñaari dëgg yooyu dëgg gi woon ci màkka moo nekk ci madina waaye dëgg gi dafay néewoon doole ñu di ko bund xatal dëgg gee ca Madina rek daa doon koo xam ne dafaa am doole libre ba mën a wane li bëgg a wane loolu yi kon mooy maanaam gàddaay gi yonente bi sallallahu alayhi wasallam gàddaaye Makka dem Madina waaye du caagee ne daw la ci jublu mbaa mu jublu noppalu yi ci coono yu bari yonente bi gàddaay na mook jullit yi jóge Makka bàyyi fa seen alal yépp te alal yi seen ngir dund moom lañ doon sonn ngir dajale ko bàyyi seenum réew mañ miinoon ngir fonk pas-pas ñu gëm muy yàlla miñ mi ñu gëm bëgg a doxal la maanaam ngëm moomee moo tax ñu bàyyi seen i alal bàyyi seen kër gañ meloon naka jekk dem ci beneen dëkk di ko fa dund loolu kon waras na cee jànge ni nit ki bu yàlla fooree ci ab xolam lépp woyof ci moom ndax ñooñu mboolem alal jiñ daan dajale bàyyi nañ ko fa réew mañ juddoo woon miin ko ba doon mag jëmm yët attan nañ koo bàyyi ngir bëgg a dëggal seen diggante seen borom kon loolu ab ders la bopp waras ko ci jànge ndax foofa ca Yasrib ba ta mooy Madina mu demee fa la taxawalee ab nos bu yees ci société islam bi mu taxawal nos bu yees bi mu taxawal nag xaajale ko yi amoon ci diggante ki ñàkk ak ki barile ak xaajale ko yi nekkoon ci diggante uh, gorsi ak jaam bi ko yi nekkoon ci diggante ki bokk ci giir sàngam ak giir sàngam yooyu yëpp foofa la seey ruy ba kenn gisutul la ca bokk foofee ci Madina la yonente bi amee max maanaam mën a taxawal li mu bëgg a taxawal ba xaajali ko yi amoon ci diggante nit yëpp dafa seey ba amatul ñu doon ay jullit mbokkoo gépp mbokkook diine mbokkook diine la léegi ñu doxal ko doxin woo xam ni kenn mësta gis euh, ku doxal lu mel noonu ci ci liñ xam ci taarixu taarixu adduna histoire adduna foofu ci Madina it fi la yonent bi sallallahu alayhi wasallam sosee ab arme arme islam ci muhaajiroon yeeg lansaar yi arme boo xam ne li mu bëgg a tasaare ci mbalug diine ñoom ñoo ko ñoo koy ba doole ji Quraysh amoon armom boobu ci fatfu Màkka ñoo dem tasaare doole joojee ba foqar ci eh, Màkka ci seen loxo moo jeexal jaamu xiram ci biir jasiratul arab maanaam arme bu mu formé ñoo jeexal loolu loolu moo tax gàddaay gi doon xew-xew bu rëy ci taarixu daawa islamiya eh, ndax dafa mel ni yonente bi nga ngañaay lim gañe ci jihaad gi mu doon jihaad ngir jotal lim bëgg a woote ngir jotal yonente gi day mel ni foofu yi la gisee ngañaay ci gàddaay googu bi mu gàddaayee la gis la am ngañaay loolu mu soxloon moo tax bokk na ci njàmbaare ko Omar ak xelam mu rafet ak xikmaam wax gi mu wax ni gàddaay gi dafa wax ni gàddaay gi moo xaajale diggante dëgg ak i neen kon na ngeen di def seen dati taarix ci gàddaay gi na ko ci def nga xam ne kon gàdd eh, taarixu gi bi ñuy taarixal ci gàddaay gi Umar ibn Xattaab moo ko digle ci ak yeewuteem ak xikma yàlla tagg na muhaajiroon yi eh, comme ni mu taggee lansaar yi ndax lansaar yi nga xamante ne ñoo dëkkul Madina it ñoo leen teeru teeru ba rafet leen bokk ak ñoom seen lépp bokkoo goo xamante ne kenn mësu gis bokk gi ñu mel ci eh, benn tarix ci taarixu àdduna moom la yàlla wax ne wa saabiqoon al awaluun min al muhaajiriin wal ansaar walladina tabaauhum bi ihsaanin radiallahu anhum wa radu anhum mu ni ña gàddaaye woon Makka ña jëkk gàddaaye Makka ak ñi leen eh, yaatal ca Madina ak ñi leen topp ci rafetal ñoom ñëpp yàlla gërëm na leen ñu gërëm ko nga xam ne ngërëmul yàlla kon yàlla seere na la ko foofu gàddaay it dafa bokk ci eh, yoon yi mboolem defarkat yi daan jaar mboolem ñi daan defar jaar nañ ci gàddaay gàddaay dem ci béréb bu bees boo xam ne fa lañu mën a taxawale la ñuy woote taarix li nanu ni Ibrahim gàddaayoon na jóge Iraq dem Saam ginnaaw bu ko waa Faris sonale bëgg koo lakk ca sawara wa gàddaaye woon na Iraq dem Saam loolu histoire nettali na ko histoire nanu ni Moussa gàddaaye woon na Misra ànd ak ña gëm ñuy daw Firawna ak i soldaaram euh, dem euh, fële dem waaw gàddaay génn dem boru Israël histoire nett lanu ni Isa gàddaayoon na ci jóge Bayt Lahm jëm Jérusalem Jérusalem mooy fi ñuy wax Quds léegi Isa gàddaayoon na ci Bayt Lahm dem foofu loolu lépp histoire nett lanu ko kon euh, gàddaay euh, mën na ci jànge ay dërs yu mag yi nit ki nu mu war a muñe balaa ak nu mu war a waranteeroo ci lim gëm ak nu mu war a saxe euh, ci lim gëm ba ba koo ngañaay di fekk si kon daanaka jeex na xam naa li ci des mooy gàddaay ba tey am na leneen lu muy def ci jullit bi eh, mooy beneen ci dégg ni gàddaay daw dem ci yàlla lay teg te daw dem ci yàlla képp rek saa bu kuy ab jullit defee gañe na eh, dunduk matériel gi nga xamante ne moom itam day xëccoo ak yàlla doomu aadama bi saa bu nit ki dawee dem ci yàlla rek léegi ngañaay daal nay tàmbalee am moo tax yàlla bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam gàddaayee gàddaay googu mu tuddee ko ngañaay daal ni illaa tansuruhu faqad nasarahu llah iz axrajahu lazina kafaru sànni ne mi ngi jóg ànd ak ab Seydina Aboubacar làqatu ci am xunti te teewul yàlla làqatu boobu ngañaay la ko tuddee ngir daw gim gàddaay gim gàddaay jëm ci yàlla rek mooy jëmmi ngañaay ngañaay lay tekki jullit yi it yàlla def digal ñu daw dellu ci yàlla nee na fa firru ila llahi inni lakum minhu nazir mubin loolu ba tey yàlla digal na ko jullit yëpp kon gàddaayu jullit bi gise nañ ci ne dana ko andil daluk xel dana ko andil ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla ndax dana ko andil ndimbal lu bàyyi ko ci yàlla ndax eh, yonente bi bi mu nekk ak Aboubacar ci dafa wax Aboubacar ni ko laa tahzan inna allaha maana bul jàq bul ndax yàlla nun la àndal kon gàddaay ba des na ci dégge ni ab tegtal la ci ak sellal ak bëgg yàlla te sellal ak bëgg yàlla nag eh, dana waral ci nit ki mu bàyyi lépp lu yàlla tere moo tax yonente bi ne al muslimuna min lisanihi wa yadihi waaye nag wal muhaajiru man hajara ma naha allahu daani waaye kii gàddaay nag mooy ki fekk li yàlla tere mu gàddaay ko loolu moom mooy kii gàddaay dëgg dëgg dëgg gàddaay dem ci yàlla nag euh, jamono bu ne yéene ju sell moo ko war a lal mbaa du doon gàddaay gu jëm ci yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na fa man kaanat hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi fa hijratuhu ilallaahi wa rasuulihi képp ku gàddaay te bu ngay gàddaay nga yéenee gàddaay dem ci yàlla ak yonentam gàddaay googu yàlla ak yonente bi danañ ko nangu waaye nag wa man kaanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi waaye koo xam ne bi ngay gàddaay addunaa la tax di gàddaay mbaa jigéen joo bëgg a takk moo la tax di gàddaay la nga jog ngir ba ngay la nga jóg ngir moom rek moom nga ca amee leneen andi woo ko ci kon gàddaay jëm ci yàlla laaj na yéene ju sell yéene ju la jooju mu laaj moo tax bi ñu demee ba fatu Makka am te boo jógee te fii di gàddaay di dem Makka it foofa dëkkub jullit la rek jaratul gàddaay moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni la hijrata ba'dal fath walakin jihaadun wa niya ginnaaw ba fata Makka amee gàddaay amatul li fi des mooy jihaad ak am yéene ju rafet kon foofu ab yemukaay la ñu taxaw fii ci liñ ci déggee euh, yama foofu yéen ba beneen yoon ñu dugg ci marxala madina bi euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di ñaan bokk jullit yëpp nag ak dégg ak topp njëriñ